Balde ak fori du Soie jógee Casamance ñëw fii ci Ndakaar bokku nekk bokku lépp boobu ñun juddooguñu léegi ñu am ñoo ñoom doom léegi nga bëgg ñaari doom yooyu tàggale ko loolu fan la am amul fenn ama Pikine lay représenté ñëpp xam nañ loolu mais kon ni ko gars yi waxee rek moom waxee ko anam boobu ñun ñoo ko jël xam nga defaree ko noo xamante wala ñu waxee ko noo xam ne demul noonu mais ama li ma la mën a xam mooy sama deret la sama doom la sama xarit la suma lépp la dee rek moo ñu tàggal ko kon Jules Baldé nu mu nekkee suma waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah dafi bàññees la ñu ngi ziaraat ñëpp nu ñëpp kulluhum Balla Gaye nee naa la ñun ay doomu Sénégal lañ te ay doomu jurit lañ ay nit dëgg lañ xam nañ lu baax xam nañ lu bon xam nañ ku baax xam nañ ku bon Balla Gaye ñun uutuñu lu la neex uutuñu lu neex sa famille uutuñu lu neex sa jabar uutuñu lu neex sa benn mbokk dëgg la ñuy wax mooy dangaa laabiir dangaa set xol yow sël yaa nekk mbër boo xam ne na yëpp la seede lool mbëri waxuma mbëru Sénégal ñenn ñi baaxuñu ne balaa yenn seytaane naan ma non daa wax Balla Gaye daa baax ñenn ñi bon waxuma loolu dama ne xadina moo seede ne Balla Gaye dafa baax te loolu moo am Balla Gaye ñun ñoo ngi gis teg suñuy bët li ngay wax ni sa diggante yow Ama yal na ko Ama dégg mu def ko si biir xolam yal na ko Jules Baldé dégg mu def ko ci biir xolam yal na ko mbokku Ama dégg ñu def ko sa biir xol yal na ko Sa dégg def ko ci biir xolam ay seen mbokk def ko seen biir xol ak ñi nga xam ne ci dëgg rek la ñuy dox ak bañ a fewale doomi haadama yàlla lii dugg seen biir xol man Ndoye Mbaye ñaanu ma ko de mais yow ak Ama Baldé ak ñoom Jules Baldé non gawuma ndax di ngeen di ngeen and and andu yag yoy kon sen bayyi li ngeen ando ñoom ni ñu andé won gawuma ko ndax lan alamu adina setan yi dañoo bari ci pikin bari geeduwaay ku jaaxar ne yow lay waxal yow lay waxal ku yaakaar ne doxu bay yow lay garawale yow seytaane bi yow lay garawale bàyyi len dugg ci yëf nit yi bàyyi len dugg diggante bu ngeen gis mu baax ngeen bu ko def lu bon ngeen di fewaloo nit ñi naan len no diw bëggu diw nangam nangam diw da la bëgg diw nangam di fen rek ñoo xëy ngeen daal dama ne dugg leen ci message bi saaga sama nekku ci yéen ay seytaane ngeen Balla Gaye ak Ama Baldé yàlla moo leen boole ci azal avant fii yàlla boole seen bàyyi avant fii dégg nga loolu la wax nee na ba yàlla boole ay baayam fekk ñoom juddoowuñu léegi yéen ngeen bëgg tey ndax làmb ndax làmb ndax jëyir ndax alawu àddina ngeen bëgg takkale ñaari ñoom sëñ bi bàyyi leen yëfu naa fekk man dégg naa message yëpp dégg naa xoolal vidéo yëpp li ñu ni kenn ku ne ak ni ما لازم يخلى فقيه